mbiru yàlla rek xam ne yàlla rek moo ñëw yàlla moo ñëw ay biram loolu rek laa ko yëgee mbiru yàlla rek ndax Mouhamed daa nekkoon fii lii ni mbir yàlla bi ñëw tey ndeyam ak baayam moo tax ak ay rakkam di daan dooleem di ñu jox ba lii fekk ko ci yàlla ñëw ak ay mbiram te ñi ko fa yóbbu it woon lii santuwuñ woon lii yàlla nag moo ñëw ay ndogalam. dinaa ko nangu nag te xam ne yàlla moo ko def waaw. bi ma mujjee déggante moom xam naa cinq jour lay mat waaw doom bu baax doom bu yërëm papaam yërëm ndeyam yërëm uuf ay rakkam papaam bu ma yeboon ne daaw si màggali Tuubaa ba tey mu ngi feebar tey rek tànkam bañ loxoom bañ muy faj ba jooni yàlla tey jii loxo mos a teggeeku ci papaam bi ma dégg mujj a déggante moom keroog bi ma jëndee frigo bii ne maa la ko jox kado samdi bee bi moo ci topp tey démb moo ma yónnee frigo bi maa toog bi gaare mu ne ma Mouhamed moo la ko jox kado samedi bi del si démb mu mu gaañ mu ajum mu gaañu samedi démb xale bu baax xale bu bëgg ñépp xale boo xam ne amul man famille bi daal ñëpp. zéro faute damay dama koy ñaanal yàlla bu ko ca jiitu ca bàmmeelam Mouhamed moom aw ma moom ci moom jiixi jaaxa aw ma ci moom benn jiixi jaaxa ndax xale boo xam ne bëgg bëgg nga sa ndey bëgg sa baay uuf ay rakkam moo nekkoon si suñu kër gi fii suñ dara maa ngi koy wut namuñ dara mais yàlla nag moo yegg si ay ndogalam te dinaa ko nangu nag ba mat sëkk yàlla moom ma ko joxoon jël na ko yàlla bawul kenn bu la xañee fii rek dina la ubbil feneen waaw. waa bi ma ko yëgee moom su ndax keroog matu naa xam nga doom sadit la te man avant mu gaañu deux jours maa ngi feebar fii tëdd xam naa boobu maa ngi koy sentir sama yaram xëy naa suba ba ngoon génnu ma ba timis si laa soog génn lekku ma naanu ma xam doom dafa fere dara dafa foor xam naa boobu sentir naa ko man sama yaram waaw bi ma ko déggee métti na hmm? xanaa dégg rek ñuy wax ba tey kenn téléphone ma wax ma ne Mouhamed gaañu na ndeke internet bi wax na ko depuis 9 heures ñun daal deux heures laa ko soog a yëg laa ko yëg ñu di ma ko nëbbu di ma ko nëbbu di ma ko nëbbu ba benn suma benn peccorgo doomam moo nekk mu dina gunaas moo ñu woon nañu neexut ba neexut amet gaañu na nii da lañ ko yëgee nii laa ko yëgee wax dëgg bu ma ko yëgee it ma ko ci yàlla ak yonent bi moom moo nekkoon xale yaa ngi jàng su ma ñetti doom yëpp ñu ngi am bag liggéeyaguñ loolu rek ñoom ñëpp moo leen yore woon ñii mu leen di fayal njàng ñii lu ne mu leen koy defal loolu rek te ba tey yàlla jeexut.